lari jiin bismillaay ci door njaay sutub maa ngi may soow te ku réew mi soow booba dangaa siiw bàyyi ndey ak njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba ñu ma dalee jiin booba tuuti booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb beneen bi ci topp parce que xam naa ni nit ñi ñoo ngi naan Keba waxagul si Bira Bira maa ngi ñëw ci moom parce que mënu ma koo mënu ma koo wàcc ndax tey waa Fatick amuñu voix amuñu ku leen plaidel amuñu ku leen kaasal suñu mbër mi mu jël ak ko ordinateur mais na ko sanction boobu nañ waxtaan wax dëgg mais teguñu ko ci dëgg teguñu ko ci yoon su fekkoon ne sax dafa def lu grave ñu mën a taxaw ñaan. mais soo génnee règlement fexeel nit ñi xam ko tëkk si làmb dañ ko fekk war ordinateur dafa ñëw tëkk te mbër beneen bi ñu ne dañ ko mere parce que bi muy ñëw keroog trait militaire la soloon mais Balla Gaye mi indi trait militaire keroog si làmb ji ñoom lu tax ak sanctionné wuñu ko 6 mois il faut ñu bàyyi affaire kumba am ndey ak kumba amul ndey man nag samay ambition su soobee yàlla ak yonent bi suñu génnee koor gi ñi ma war a woo dinaa e parce que le ministre des sports monsieur Yanko Badiatra, maa koy au passage moom moo taxaw ne dans 8 mois nañ dem ci fédération te ku wax fédération nag wax vote te ku mës déglu samay discours déglu dégg man candidat laa su élection

loolu moom awma lu ma ciy werante dañu ne fédération la jëm man président école de lutte Fatick la ressortissant de Fatick mais en même temps soppe ak xaritu waa Kër Massar te su ma commencé sama tournée visite yi may njëkk a def dinaa ko ñëw def ci Kër Massar. booba danga siiw bàyyi ndey ak sa njaay yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba ñu ma jiin booba tuuti laa booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb